wax na ne képp ku mokkal midaad yi sa wajur wu jigéen bu doon jaamu yàlla ba mel ne Mariyaama itam jaamu yàlla yàllam googee du dem ci ajjanaam maanaam sun borom dafa waajal ajjana barab boo xam ne ñi mokkal midaad yi seen waajur yu jigéen fa lañ leen di def fi mu ne koo xam ne yàlla dalaa dimbale juddowoo ci lislaam ngay ab tuubeen sa wajuri jigen de ci ak yéefar itam boo mi midaadi dañ koy jëlee fofé ci bar saxul kéefirina yobbu ko ci aljana mi midaadi jooje kep ko mi manam tabaxal nga sa jigen jigéen àjjana kër midaadi kër mi goo go xamni ku mi midaadi do fa dug sa wajuru do fa dug serigne touba wax na ne kep kum nek sa deun so faato jaro sang jaro sang jaro lepp mbir adi defal nako ko euh kep kuy jàng midadi saa boo jàngee yarami say say sa jëm yaram yi sun borom sant na malaika mu jël ursu marjaan nga xam mom lañu xawé buntu aljane xop ko dara ci saw yaram wax nañ ne kurs wo mu xawé fu mu yeggé ba yaram yépp masé nga ñibi aljana ci jamono way lolu seen la dindi dafa am benn mbokk taalibe kilifa la sax ci ñun ñu koy wax sëñ Abdou Mbaye doomi sëñ Maxtaar Mbaye Keere la moo ko sëñ Moustapha Mbaye Keere ñoo bokk waajur sëñ Abdou borom dër bi la ko sëñ Moustapha sëñ Maxtaar Mbaye Keere tudd sëñ Maxtaar Mbaye Keere bokk na ci juróom yi njëkk a jébbalu ci sañ Tuubaa sëñ Abdou Mbaye moom dafa amoon benn taalibe boo xam ne danoon durus mi daal di ñu di ko wax njaay mi daal di sëñ Abdou Mbaye nekk ci benn xalaw ñu xamal ko ne ko sa taalibe bii de mi daal di muy ñuy defar yaram ñuy xoobu yaram wurus benn tànku càmmooñam baaraamu dëyu càmmoñam moo ci des te bu jàngatee benn midaad yi dana matale loola te buñ ko buñ ko xawee mu mu faatu mu mu xëyee woola ko mu ñëw mu ne ko am amatoo ndigal ci jàng midaad yi seetal yeneen xasaat nga jàng waaye midaad yi na ko bàyyi <laughs> mu ne ko waaw ba am yàlla dogal sëñ Abdou Mbaye dem Touba moom mu nekk keere am benn bokk taalibeem bu ko xamoon ci loolu rek ñëw di ko ziyaare jox ko benn midaad yi addiya mu jàng ko xatte ne sax taawoon nañ ko bi mu ko jàngee ci tàkkusaan gi mu faatu bi ñu ko indilee sëñ Abdou mbay mu laaj ñu ne ko dafa am ku ko joxoon milliards yi ñu ne ko looloo tax kay bi ñu ko dencee ba noppi la dem sëñ Blaat ne ko nag Mbàkke damaa gis dongo yi fi mu ne jublu nañu xasida yi jublu koo xam ne gis naa bunt bu ci ubbeeku boo ko tëjul dongo yi bari dinañ faatu nettali ko mbir mi ni mu demee ci suba ko sëñ Blaat woo la ko mu ne ko mu ne ko Mbàkke mu ne ko sëñ Tuubaa na ko jërëjëf Abdou Lahad kon léegi nu neex waaye doxee ci xasida yi te du tee mën a gudd fan bu woon loolu du am waaye midaad yi xasida la goo xam ne eh, xam nga muxaddamaatul am yàlla sëñ Tuubaa dafa wax ne képp koo góorgóorlu ba mokkal gis bul xuloo ku doon sa baay koo xam ne moo doon sa baay toppale naa ko doon sa baay yow ak ku la mënoon a jur sëñ Tuubaa neen léegi maa la jur yow ku bokkal gis bu képp ku mokkal mawaay bi sëñ Tuubaa nee na ku mënoon di sa ndey ko sama jëmm di sa ndey ku mokkal mawaay bu boo la neexee nga ne sëriñ Tuubaa mooy sama yaay nee na ku mokkal mu xaddimaatul am daa nee na maay sa jëmm boo nee maay sëñ Tuubaa wàcc nga noonu ñett xas day noonu la demee. soo xoolee mu xaddimaatul am daa benn bayitu mu xaddimaatul am daa bu nekk sëñ Tuubaa nee na ci làmmiñ Cheikh Abdoul Ahad jaamu yàlla téeméeri at la ak ñeent fukk 292 bayit la xasida googu benn bayit bu ci nekk jaamu yàlla téeméeri at la ak ñeent fukk 140 ans sëñ bi toogal jàng benn muxadimatul am daal léegi calculer ñaata at nga am ci ay coyaaba ku lay jaay ay jaamu yàlla daa xamul benn bayit 140 ans nga multiplier ko par 292 loolu kenn dafa xam ñaata at la waaye xoolal benn bayitu midaat yi mooy wecc benn mooy wecc benn muxaddimatul amdaa léegi boo jëlee cent quarante temps yooyu multiplié ko par cent quatre-vingt-douze lim lay jox mooy benn bayitu midaat yi ndeysaan yàlla mooy benn bayitu midaat yi